moo tax mu daal di jël li ko yoon may te fexe ba mbiri war a teguwaat ci yoon tegu ci yoon bi mu bëgg moo tax yéene kaay groupe Rewmi Network bi di ñu xamal ni woote na élection législative fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu dëgmal Sud Quotidien ne ko waaw ndax Bassirou Diomaye fay daal di ne dakkal coow li dogal bi mu jël démb ngir tas assemblée nationale te samp bisu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ngir ñu amal fa élection législative ci biir Sud Quotidien di Abdoul mbaw di xamle ni njiitu réew mi ci boppam dafa mel ni ku daal di weddi boppam waa bennoo yamuñu ca ndax ci biir Vox Populi nee ñu nangu nañu dogal bi nga xamante ne njiitu réew mi ci boppam jël na ko waaye ñu ngi koy méngale ni ab indignité républicaine te it doxalin bi ci boppam ñu jàpp ni mbirub politique bu ndaw la li Bassirou Diomaye Faye def du lu ndaw ndax Walf Quotidien daf ko jàppee ni ku kawo bu dal la muy dogal bi nga xamante ne jël na ko démb tas assemblée bi li njiitu mi def na tas yor-yor bi jàpp ni moom Bassirou Diomaye Faye ci boppam dafa doggali nguurub Macky Sall ni ki démb li njiitu réew mi def démb kenn du ko fàtte ndax dafay bokk ci taarix enquête quotidien moo ni xamle ndax dafa jàpp ni gulet ab njiitu réew ci Sénégal daal di jël ab décret ngir tas assemblée nationale yéenekaay bi di xam ne ni moom njiitu réew mi fa ñu ko doon xaar gisuñu ko fa ndax déclaration de politique générale bi mu yëgle woon ba noppi te yegguñu ko ne ndax dafa jàpp ni dogal bi mu jël démb ngir tas assemblée nationale kii ko digle du kenn ku dul jëwri ñoom ju njëkk te njeexintal yi foo ko nat nag war na ko mun a weesu bu ñu sukkandekoo ci ma jàmbal Diagne bi yéenekaay bi di lay Échos gis ni ba Bassirou Diomaye fay démb la daa di faat quatorzième législature bi donte faat gi neexul benn yoon groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar quatorzième législature bi ñu faat démb le témoin yéenekaay dafa jàpp ni dañu ko te yëfi àndut ak benn fleur waaye gannaaw faat nañu quatorzième législature bi le soleil yéeni kaay gis ni li ci des mooy delluwaat ca mbañ gàcce ya fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu dëgmal datub élection bi nga xamante ne moom Bassirou Diomaye Faye daal dina koy fësal l'observateur gis na ni bëri na ci lees waxul ak ay mbir yi nga xamante ne war nañ ko lëmbët bokk na ci limu lim xalaat bi tukkee ci conseil constitutionnel wàllu parenage ak sax coowal délai yi nga xamante ne war nañ ci tënku yéeni kaay groupe futur média bi yokk ci ni sax lu jëm ci opération budgétaire yi nga xamante ne nguur gi war na koo def dina bëri lool lëndëm lëndëm ba ci sax ay milliards yi nga xamante ne war nañ koo xëpp ci organisation élection yi législative yooyee xawma kan moo ci parewul waaye Anta Babacar ngoom moom noppi na ngir delluwaat ci terrain bi Walf Quotidien du ñu xamal ni moom borom Sedima li mu bëgg mooy imposer cohabitation nguuru Bassirou Diomaye Faye li yamba am mooy dogal bi njiitu réew mi jël ni ki démb ñi féete ci géopolitique gi daal jur na coow ci ñi féete ci géopolitique gi coow lii di woy gannaaw su xëpp gaal bi yaboon ay migrants ci waaxub Mbuur libération di ñu xamal ni kon marine nationale def na ab bilanam ne lu toll ci fanweer ak juróom-ñeenti niw la ñu daal di dajale bis bi la jour wax na tamit ci wàllub immigration clandestine boobee ak kàddu yi nga xamante ne njiitu réew mi yëkkati na ko ci diwaanub Tiwaawan ni ki démb Basiru Jomaay Fay mel ni kuy méngale bila le phénomène ni ab xaru kàddug Anta Babacar ci biir yéene kaay bi di bis bi lu muy sàkku ci njiitu réew mi mooy ñu daal di door ay concertation muy waxtaan ngir sàkku ay pexe ci xeex bi mbir di faat ay bakkan mbirum coupure courant démb la tribune mu ngi ñuy nettali ni ndakaaru wërngal këpp daanaka ay waxtu la ñu toog te amuñu courant yéenekaay bi mel ni ku ci dut baaraamu tuuma ñii di waa Senelec Rewmi pipol tey ji ci ajuma ji mu ñuy xamal kan mooy waay di nga xamante ne artiste la lu toll nag ci ñaar fukki at mu ngi yëngu ci wàllu hip-hop wane ci boppam lool fii ci senegal fële ca Arabie Saoudite record yéenekaay dikk na ci xew-xew bu